maa ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay ci plateau bi. di nuyu président Moustapha Diakhaté di ko jaal ki nga xam ni moo fi jóge parce que xam naa seen diggante ni mu meloon. Mhm. seen ànd gi itam bu yàgg boo xam ne ñëpp mën nañ ko seede moom président Macky Sall ak ñi nga xam ni ñoo ci APR di wax ne rek démb réew mi moom daloon na tiis parce que ñàkk nañ ko rëy rëy rëy. ci langue politique. Mhm. muy Alioune Badara Cissé di ko jàll njabootam di ñaan yàlla teeru ko ci àjjana yi gën a kawe. te teg loxoom ci njaboot gi mu fi bàyyi. su ma nee tiis dëgg la parce que man du may faral di ñëw sax ci émission yu mel nii. sànq maa ngi koy wax en off. Euh, émission yoo xam ni souvent dañuy rendre hommage ku fi jóge mhm. bokk na ci li tax du ma ciy sawar a ñëw. mooy dafay fësal ci benn ci jikko yi nga xam ni moom laa gën a sib ci sénégalais yi muy hypocrite parce que nag Sénégal dañuy faral di def ku dee baax boo dee dund duñ la waxal benn xeetu baax baax bu nekk ci yow bu la suñu borom jëlee nag ku ne taxaw wax lu mu xam ak lu mu xamul mais li tax ma ñëw tey mooy Alioune si Cissé moom bépp baax bu ko nit waxal rek am na lu la ump wala am na loo xamul wala am na loo fàtte ci moom nit ku baax la fi hmm. yàlla jële ñu ñaan yàlla yàlla may xolu muñ njaboot gi nga xam ni moom lañ fi bàyyi teeru ko ci àjjana ju gën a kawe bu ñu xuusee ci kanam ci waxtaan bi hmm. dinañu génne seddu kàddu euh, ay kàddu seede yu ñu xam ci moom parce que nag yàlla daf ñoo nattoo ñu nekk ay observateur hmm. maanaam di xool ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu réew bi ci wàllu politique surtout ci yam euh, wàll bi mu féete woon amit ràññee xam ka kan donc defe naa lu luñ ci mën a wax dañ koy sukkandiku rek ci li nga xam ni moom lañ jàpp ci moom te ay yëwén ñu jàpp ni loolu moo nekkoon li nga xam ni mooy mandarga Alioune Badara Cissé mi fi jóge tey jërëjëf Momar kàddu yi rafet na ñu jox kàddu